ku mel ni Dip mhm. seen problème lan la ba nga ñëw invité Omzo Dollar bàyyi Dip non du bàyyi mm. loolu duñ ko def ñun ñëpp lañ euh, ñëpp lañ amal ay relation yu nice ñëpp lañu yéene jàmm bëgg a doxante ak ñun suñu ak nit ci jàmm mm. mais euh, bon parfois aussi sa mën na am ay affaires yu ndaw yoo xamante si mooy tax nga invité nit ñëwul wala ay affaire donc ñun personnellement on a invité ñi nga xamante ni actuellement ñu ngi am ak ñoom ay rapport yu nice peut-être que ni aussi am na lu xew lu ndaw yoo xamante si nii moo tax que ni kenn Youssoufa Dib année dernière invité nañ ko si pareil il était pas là mais cette année aussi on n'a pas fait la, la démarche de l'inviter parce que bon comme on l'avait invité que ñëwul et que invité nañ ko si yeneen affaire ñëwul peut-être ni par rapport à un petit boo xam ni amoon na peut-être que ni dafa am ay affaires yu mu jàpp yoo xam ne j'aime pas trop expliquer peut-être que ni lui lui il en fait bon mais expliquez ñu en fait voilà d'accord je vais l'expliquer comme ça mu ñu dindi zone d'ombre yi quoi en fait dafa amoon un jour j'étais en train de de seetaan benn mbalax man muy def benn acoustique donc ta ta ta di woy di tudd ay tour ñu koy sànni xaalis bu bëri quoi ay tour donc le truc m'a un peu tu vois je me suis dit ah ça c'est trop facile après ma dem ci sama page Facebook ma bind genre ñun rappeurs yi musique la ñuy def musique buy dolli góor yàlla jom buy ñaax booy du leen jële ci drogue dañ wax ay affaire quoi pour tóo ci hip hop bi du ñu sàmmay mbayaan malgré que ñeneen ñi mën nañu ëpp alal ñu leen koy tóor ñun kenn ñu tóor parce que du ñu way kenn mais on sert le peuple dañuy on essaie de servir le peuple de de la jeunesse donc je dis au public gën leen jàppale seen artistes yi di leen jënd seen marque de vêtements yi seen album yi seen parce que ils sont loolu moo tax ñoom duñ mës a sàmmay mbayaan li ñuy def dañ koo gëm donc moom il a entendu le mot sàmmay mbayaan parce que c'était une période boo xam ne waxoon na affaire Youssou Ndour y a eu quelques ay yu ko waxoon da ngaa sàmmay mbayaan Youssou Ndour donc quand il a vu le mot sàmmay mbayaan il a pas cherché à comprendre donc il est parti écrire si mbiram nana nii naa da nga foog ni dama ragal nii na ne foog rab gaal seen man na ne nii nana naa tu vois et euh, pour moi c'était pas naa loolu noonu Après, il y a eu qui est venu me dire. Hum, euh, il y a un petit à qui est venu me Dip mi li mu bind dafa mel ne yow lay tontu par rapport ak li nga dafa mel ne ma ne ko non bàyyi li ngay def yow da nga bëgg fitna kii nan lay waxee ak man bu amoon lu ma wax dafa ma woo téléphone lii du pour man tu vois. donc personnellement je pensais pas que pour moi donc ma nelaw ba si lendemain bi affaire yi am ay tada di tada ma woo sama benn copain mu ma waaw moom Dip woo na ko. ne ko grand bi dafa déconné dama ko respecté warul woon wax lii et tout ma xalaat que ni confusion am na ma jël sama téléphone woo ko. woo na ma mu ne ma wee nelaw nga parce que waxuma ak yow et cetera et cetera ma ne ko ah parce que man li ma liir. bu ñu waxee Samba Mbayaan ak hip hop parce que ba ma defee Youssou Ndour la ñu ci commencé a wax waxu Samba Mbayaan si hip hop donc je pense que man ngay waxal et man ngay waxal genre mu ne man non waxuma ak yow finalement ñu ne waa grawul quoi parce que nee na waxul man et puis après ñu jàll jàll si leneen quoi il a compris il s'est excusé il a dit ah oui c'est vrai parce que xam nga rek comme il y avait le mot Mbayaan j'ai pas cherché a des choses comme ça appelle-moi qu'on mais aprè par la suite j'avais l'impression que ni tu vois dafa continuer jàpp loolu noonu quoi invité ko benn son bu ñu def texte bi ci sama album yëpp j'invite des artistes yu bëri moom il est pas venu il nous a dit qu'il avait pas le temps nanana te ok y a pas de souci aprè euh, ma gis ko wax ko waroon nga ñëw moo gën a nice parce que day tax ba kenn du foog ni man ak yow du ñu am coow quoi parce que su ñu defee texte bi actuellement gisuñu la si des gens vont me dire pourtant di puis carton et gisuñu ko si moo ko pour éviter loolu waroon nga ñëw mu ne noo xam nga rek euh, xam ne euh, expliqué à Fall ma ne ok amul problème ñu def texte yi ñu def show of de pareil nu ñu invité artistes yëpp ñu invité ko ñëwul aussi waaw après joxuñu explication li tax ñëwul et tout ba ñu xam ne kon peut-être moom reconnaître na dafa defoon erreur mais ci démarche am wanewul que ni bàyyi na mu ngi cool quoi dafa mu jàpp comme xam nañu dafa am jàpp aussi ñu ñu ceene suñu self quoi amuñu ko moom benn problème musuñu ko wax lu bon musuñu ko seedeel lu bon c'est un gars que j'ai toujours défendu fu ma ko mos a romb si mbedd bi dama koy wax que ni noonu la yaa ngi yaa ngi affaire je respecte ça lii mooy tax game bi dem su defee vidéo dama koy balancer samay mur su defee concert damay dem filmer ñëw wan que ni man je le respecte ko te boo yi ma dëkkal si maa ngi si kanamu caméra duñ ma bàyyi ma fenn booy boobu avant yii di am kenn du ko tudd sama kanam boo ko waxee am na boo yoo xam neexu leen woon bu ñu ko tuddee sama kanam damay dal seen kaw bàyyi leen booy mu job bu leen ko wax Samba Mbayaan parce que Pogba bi mu ko defee waxu leen ko Samba Mbayaan te loolu si hip-hop la bokk donc je l'ai toujours défendu sa réaction m'a un peu surpris je me suis dit bon affaire jeune la quand t'es jeune da ngay am benn fugg bu nekk si yow mais quand on s'est expliqué et nga juum après sa démarche dafa waroon nuroog quelqu'un qui a reconnu que dafa juum mais j'ai senti que il avait gardé benn certaine rancune di ko démêler invité naa ko deux fois invité ko si woof day ñëwul donc je vois pas pourquoi ma war a déma démarche loolu du sama affaire quoi donc dama ceene sama self peut-être ni bis dana ñëw on s'explique peut-être ni on s'explique pas peut-être ne day def affaire am côté mais je n'ai aucune haine wala problème en lui